Macky Sall dal dinay jàkkaarloog askan wi ci njeexitalu atum 2023 ci discours bu mujj ci at bu bees bi moom jiitam réew mi nag amal na bilan wu fukk ak ñaari at yi mu def ci boppu réew mi bi la liggéey économiste bi seetaan na ko ak intérêt ngir bañ dara rëcc ko muy bind ci bloc notam moom économiste bi nag jàpp na ne discours Macky Sall bi lu daw yaram la président bi dafa Euh, tàggatoo boo gis même boo ko ñaanoon sax buñ si eggee day sa yaram mun na daw. waaye moom mi xelam màcc ci wàllu koom jàpp na ne njiitum réew mi ci bile discours ñëw na ci ay poñam yoo xam ne def caa liggéey ci bile bilan ci wàllu économie lu ci mel ni infrastructure équité territoriale protection sociale waaye nag lii di mbirum industrie mbirum agriculture ak ni mu yore gestion publique walla sax. mbirum euh, xëy àdduwu ci ni mu waree. président boo xoolee bu mu ñëwee si mbirum industrialisation daf si gaaw a jàll ça veut dire que moom reconnaître na que politique industrielle am échec le passage d'une agriculture mécanique mécanisée à la transformation à la création de valeur ajoutée ba ñu dem si industrie loolu moom ça n'a pas été si bilan si wàllu aussi euh, xëyu ndaw yi xam nga lu mu doon ñëw 2012 500 000 emplois la wax mais 2012 ak tey ñëpp xam nañu que loolu dafa waroon yokk loxoom. taux de croissance bi nga xam ne mu ngi nekkoon eh, ci lu ëpp juróom-benn ci téeméer boo jël laata mbasu Covid 19 eh, tey jii ñu ngi ko jàpp ci juróom-ñeent yu toftal ñaar ci téeméer boo jël bu ñu daal di dooree exploitation gaz ak pétrole fii ci réew mi budget national bi nag jóge na ci ñaari junni ak ñetti téeméer ak ñeent fukk ak ñeenti milliards ci 2012 yegg ba ci juróom-ñaari junni ak ñetti milliards ci atum 2024. effectivement dina créer une production. intérieur boo xam ne effectivement dina yokkaat suñu production intérieure bi. discours di discours bilan ba tax na moom njiitu réew mi Macky Sall am na yaakaar ci ki ko nar wutu mu dal di wëyal lii di émergence.